fan nga ko jëlee woon corona bi. man de jaaxle naa xëy na TFM laa ko jëlee parce que TFM laa ko si jóg génn ma woon ñu invité ma 23 juin pour ñu fête 23 juin man ma Mame Niang ñu jàlloo ak Ablaye Cissé. mais ñi ngay wax ni ñëpp kenn. corona wu corona bi mu ngi woon mu mu temps yooyu. ñi nga wax fi ñëpp xam nga kenn. corona ba ma demee ba ma demee sama chambre dañu ma ne fii la ku caata yëpp te doon muy cabine 4 ñu ne ma sa xarit bi day tooñ fii de moo doon néegam cabine 4. man ne xam nga maa ko jàkkoon lu ñu lee bëri na te bi may ñëw yëg naa ne corona bi am na ñu ko fi am mais terewul ñëw naa rek ndax le 23 juin mënu moon a ba a ñëw ndax bis la ci bis yi bis boobu moom sa bis la mënoo ab santé maître di tooñ nga nag TFM wax dëgg yàlla boo fi bëggee jëlee sa sa sa sa boobu. dama ni mën na am. non non mais mën na am loolu loolu mën ta passé mais yaa ngi ñëw ci plateau boo xam ne amul kenn ci ñoom ku ko am. yow nga dem nga feebar nga ñëw nga ni ñoom nit